assalamu aleykum warahmatullah wabarakatuh. mbokk yi nuyu naa leen ziar leen tey dañuy defal suñu jus bisaab bu bi macha allah bu e neex bi ya bu mucc ay bi am na solo macha allah moom la ñuy daal di defar tey mais di leen ñaan ngeen abonné ci seen bi partagé ci seeni mbokk seeni xarit seeni andi jàmm yëpp macha allah bu ko defee seen bi yaatu lool ñëpp bokk ci incha allah léegi de sama bisaab baa ngi ni raxas naa ko ba mu set ma commencé di baxal muy nonu noonu vinto xaju pot bi la def parce que dama bëgg def lu bari dal di denc xaju pot bi la jël eh, mom la jël ni mom raxas bam set baxal inshallah allah muy nonu xonxu na ciur gis ngeen amna na solo lool macha allah eh, léegi sama nana façon naana yaa ngi yu bëree bëri la maa ngi ci def yu wow ak zaar yo léegi damay def presse eh, tropical bi mom amna fruit yu bari bari bari ma def eh, sama ki bobu ak eh, essence vanille lépp macha allah suukar gën naa ba rek lay def parce que jus bi dafa am sucre momi tamit pour ñu bañ ko faté légui damay def eh, sucre vanille 5 sucre vanille légui damay jël naanaa yëpp macha allah ma dal di ko ci def nana mantu nana façon yu bari bari bari la ci def yi wow yi yu wow yi tamit xama day am guubu baax baax baax allah ak bu toy mom la jël yépp dal di boole léegi damay fay sama gaz comme lii client ba ma koy bàyyi mu dal di yëbbi bu baax a baax a baax ci biir léegi dama koy bàyyi foofu lu yàgg après ma ñëw dal di ko segg incha allah bi dama bëgg mu naturel nga xam duma ko fi nekk di fi def ay ay affaire yu bëri nga xam ne dina dinaa sentir goût bisaab bi <laughs> macha allah léegi mu ngi ne gis ngeen yëbbi na bu baax baax ba couleur yi changé na léegi fu ne bi xawna ki uh, kii na dal bu baax a baax macha allah léegi dama koy ñew dal di ko segg bu ko ma jublu ci liggéey bi bisab dafa neex te dafa baax tamit surtout bu naturel bi dafa baax lool xolal ma li rek xolal ma li rek macha allah ku nekk selon yow boo boo bëggé bu forox bu baakha baax ba wala bo bëggé lu yem dal wala bu far wala bu farul ça dépend ku nekk li nga bëgg waaw kay motax dalma ma Masha la non mais macha allah man mu ngi ni li dal luy tolloog butéelu kiren ñaari butéelu kiren dal luy tolloo ñaari butéelu kiren dal la la ci am ci xaju pot bobu waaw ci xaju pot bobu léegi mu ngi nii macha allah léegi dama koy yëngal xol ni mu ma def sama sucre léegi sucre si gannaaw liibar bi damay def tuti, léegi bayima wañi wàññi pour au cas mu bañ a suukar tamit ba mu ëpp ndax sama jus bi da am suukar moom it bañ ko fàtte léegi sucre vanille laa ci def cinq noonu moom tamit euh, daa neex guubu neex a neex la am tamit ci kii plus naanaay instant bi naanaay guu naanaay dañoo feeñ bu baax a baax baax ci jus bi ndax bàyyi naa ko mu euh, yëbb lu yàgg yàgg yàgg yàgg ci kii bi ci bisaab bi yàkkamtiwu ma ko léegi dama koy yëngal xol gis ngeen xam ne ni bisab bi da far da la le meuna wax far na laa leen mën wax couleur bi tamit rouge na te xet bu neex neex neex la am odeur bu neex lay gulli instant bi parce que nana yi ma ci def yi mu yu beuri yi ma ci def moo ak sucre vanille bi tamit macha allah léegi damay ñëw dal di def sama euh, essence vanille essence banane sorry essence banane lu tolok ñaari kiberi essence banan bi ñaari kiber dal mom la ci def non lu tolo ñaari kiber man nga jël kiber bobu nga dal di ko natte wala nga def kuddu bu mu nga doli tuuti mom la def wa inshallah allah dama ñëw dal def flodrance de tamit flodrance euh, tamit selon votre goût amna ñoo xamne bëggu ñu flo go flo trans boko bëggul tamit ma nga ko amé batay inshallah légui mom tamit damay def gis ngeen ben ñaar ben ñaar ñett ñent légui kat kat da la la kat bëss da la def manam da ñetti kuddu da la ci def manam ñetti kuddu la ci def wala ñaar mhm. pour ku nekk dal xam ni ngay ni ngay kii après bi sa bi defa neex dafa neex macha allah ma ñam ma xol ndax sukar bi kii na léegi mën naa def sama ji ji bi do def lepp bu la neex li bu la neex tam nga def lepp man legi damay defal tuuti damay defal tour bañ tamit mu dominer guu bisaab bi mom comme tropical la da nga gis ne gu yu beure beuri la am parce que ki fruit yi dañu beuri cocktail la fruit yi dañu beuri legi gis ngeen tamit day jox bisaab bi benn benn couleur bu rafet macha allah te day neex tamit day neex a neex a neex xam nga moom dafa naturel macha allah moo tax ma def ko ci léegi suukar boobu ma desaloon dama ko ciy dolli parce que des na euh, saf ndax man sama bisaab bi dafa far daal noonu laa leen mën a wax dafa far ku ñemewul bisaab bu far daal bul faral sa bos mais man sama bos moom macha allah daa far léegi mu ngi nii def naa li may def yëpp. léegi bisaab bi neex na naturel na tamit couleur bi rafet na set na sell na léegi dama koy ñëw daal di servir dama koy ñëw daal di servir waaw di la ñaan encore une fois ngeen abonné ci chaîne bi macha allah gis ngeen servir naa ko sànni naa sama feuille menthe ci biir ba tey pour mu gën a neex <laughs> léegi gis ngeen am naa benn butéel ak xaaj euh, kiran léegi ñaari dama koy congelé denc ko incha allah maa ngi maa ngi koy may Maguette soxna Maguette madam Sakho moom laa may jus bi macha allah moom laa may jus bi tey de <laughs> soxna Maguette ñaareel la nag waaye ba tey sama waay la sama xarit la <laughs> macha allah maa leen di jaajëfal leen yëpp xam naa beneen recette